Euh, mu jëm ci ku mel ni Hannibal Djim mu jëm ci ku mel ni benn Taleb Sow mu jëm ci ku mel ni Ngouda Mboup Khadim Bamba Diagne euh, daanaka quatre-vingt-un ak lu teg ci ay nomination boo yoo xamante ne am na ces derniers temps am ñoo xamante ne si seen gis-gis ci nomination yooyu daal mooy mbir mi dafa nduru genre partage gato wala loo xamante ni daal lañ doon xeex démb ak bërki démb moo fi am gis nañu euh, keroog rek lu jëm ci nomination wu doomu kii di Yacine Fall di Sophie Zinga donc mu indi aussi une polémique naka nga gisee tey nomination yi ñu teg nguur gu bees gii nii ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb ngir liggéey ak ñoom. waaw xam nga cest à Sénégal dafa baaxoo wax waaye biir baaxoo wax gi yëpp dañ dul xool li ñu war a wax ñu wax ko li ñu war a wax la ñuy wax euh, même si que bu dee partage ngato la ngata bi ba mu taqee suuf dafa am ñoo xam ne dañ doon jël suuf du ci xëpp pour mu gën a taq am ñoo xam ne seen objectif yëpp mooy fu ñu taq fu ñu tànkee ji ndox pour raxas ngato bi. mais ñooñu nag duñ ut seen ndox raxas ngato bi ba ngato bi set ñi doon xëpp suuf ci ngato bi ne pourquoi pas ñi doon raxas ngato bi ñu leen di jox ci ngato bi ñuy lekk loolu xam nga maanaam fa la ñàkk xel yam beneen bi ci desit mooy euh, c'est normal ñu nome ñi nga xam ni war nañ leen a nome parce que ki doon xeex ak ki xeexut buñ tollee ay buñ tolloowee ñoom ñaar ay CV jël ki doon xeex moo gën a yenu mën a jël ki xeexutoon pour man beneen bi ci des mooy euh, papa yaay doom nijaay tonton yëpp nekk ci biir gouvernement di liggéey bañuñ ko mais ñu jëriñ dara gouvernement bi moo ñu ko ëppal solo bi ci des it mooy nañ bàyyi ba gis lañ gisoon ci Amadou Sall doomi Macky Sall muy avant papam di falu mosuñ koo gis mu liggéey mosuñ koo gis mu yor xaalis mosuñ koo gis maanaam mosuñ koo xam ñu dem ba ci biir ñu gis ko mu yor ay parking oto di ànd ak ay milliardaire di proposer ay nit dem ba nga xam ne événement yi fi amoon doon na recruter ak ay nit pour ñu jàmmaarloo ak sénégalais yi ñun loolu la ñuy daw mais kantaan nag ñi ñuy jël bu fekkee dañ leen a jël ngir ñu soutenir Sénégal liggéeyal Sénégal kooku waxuma jar na ko mais ëpp na ko te ànd mm-hmm. Mm-hmm. na ñeneen ñu war a nominé. parce que mm-hmm. dé ma la expliqué ci junj bi na la dama ne la ba raxas ngato bi jotee ñooñu dañ doon raxas ngato bi seen CV matee ko. kon c'est normal ñu ñu ñu ñu leen ñu liggéey. parce que yàlla ba mu yónnee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bu ñëw indi ay actes yi lislaam oote ñu xare ji def nangam def nangam ba lislaam taxaw ba doon donn ko jotee <laughs> ña ko yeyoo ñoo ko doon mm-hmm. et pourtant booba Alioune mu ngi fa woon moom Ndaye ak Baye ba astafurla bokk ak moom euh, bokk ak moom. di di di doom Baye taxam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais Aboubacar lañ jiital na ko yaay jiite. Mhm. mu jiite pourquoi parce que ba sonn jotee Aboubacar moo sonn ñoo ànd dugg ci xunt ñoom ñaar ñoo ànd dem Medina ñoo ànd sonn ñoo ànd nangam bañ na ko ba mu jee ñibbisi euh, Abu Jahal euh, na ko yontu yàlla ma sa yonentu bi de nee na dem na baytul maqadis ñëwaat te même même temps il est temps nangam nangam. def ko su ne gis na boromam sax dëgg la alxuraan ñëw fa kaana xaaba xew seeni aw adna waaw ne gis na Muhammad daje na ak boromam lu yem ni njooñu lasper ñaari bant lasper yi muy jàkkaarloog boromam leeru suñu borom di ko dugg leeram mu dugg leeru suñu borom te ba Aboubacar di wax loola booba xamutoon sax ne Muhammad ja àgg na foofa si suñu borom moo lay xamal ne la nit ki la nga nekk muy dëgg ci yow bu jëriñu jotee dañ laa war jëriñ ci loola mais ci kaw nag nga matee ko jub ko mhm. ñooñ nag matee nañ ko jub nañ ko seeni CV matee na ko mhm. loolu kese la woon mhm. Euh, récemment ñu gis benn sortie boo xamante ne nii ku bokk ci seen kuréel euh, di Imam drame daf ko def laataa sax génn bu mujj bi génn bu njëkk bi euh, di wax ci ñenn ñoo xamante ne nii dañ leen a tabb waaye daanaka jot leen dafa xaw a jafe laa laataa sax may ñëw ci kàddu yi am récemment naka nga jàngatee kàddu yooyu mu keroog bay wax ne daanaka ab soxna jot leen sax moom moo gën a yomb ñoom ñu mën a am accès si nit ñooñu wala wala ñu décroché leen. waaw man kàddoom yëpp kàddu boobu rek laa ci ñaawlu. ak euh, kaddu yi nga xam ne saaga la. Mhm. jëmee ci public bi. Euh, mais bu dul loolu gis-gisam ak xalaatam am na droit wax ko parce que mhm. militant la. Mhm. te militant nag euh, boo gisee li nga war a wax wax ko dara nekku ca mais nga waxee ko ci discipline. waxee ko ci aussi tamit ci ci ci njëkk ak teranga bañ ko waxee ci noo xam ne bu génnee ci public bi dana indi erreur ak ay jafe-jafe. parce loolu dafay yàq lu bare bare bare pour man. beneen bu ci des mooy euh, saaga moom rafetlu wuñ ko ci benn côté. Mm-hmm. jigéen ña ngi leen di jotit kooku wax juy yàq la te aussi tamit wax juy invinacé beneen la boo xam ne ki gàtt xel na jàppee neneen ak neneen ak neneen. Mm-hmm. la preuve bi mu génnee TFM. ni mu waxee ak dal gi mu waxee ak fa mu waxee rek mooy mat na responsabilité bi mu doon. Mm-hmm. te aussi tamit nangu naa ku ko wax lu ko neex ak lu ko naqadi dafa doyoon sëkk ñu ciy ci leneen. beneen bu ci des jot jot naa benn audio buy génn transversé ci. réseaux sociaux yi TikTok yeeg yooyu. ñi ko génne ci suñ biir lañu nekk muy biir Modap. di ay responsabilités yoo xam ne dara taxul leen a jóg wala dara taxul leen ko def ñenn ñu lu dul lan lu dul ut ay poste wala lan wala xeex ak benn nit personnel boo xam ne jotee nañ ak wala benn nit personnel boo xam ne uti naa ak ñoom gis-gis bëgg koo yàq te loolu bu ñu jàppee ne Modap la ñuy yàq wala nit kooku la ñuy yàq yàquñ kooku seen bopp la ñuy yàq. parce que man mënuma comprendre démb nga ànd ak nit ki muy métti ngeen di nas di nocci. yaa ngi dégg. Mhm. tey mu neex ak mu naqadi waroo ko xàmmee ñaar yooyu. bu nekkee ci jafe-jafe da ngaa war a taxaw défendre ko ci jafe-jafeem yooyu parce que ñun mënuñ woon ne Ousmane ko ba mu nekkee ci jafe-jafe nekk ci kaso nekk ci ñu koy tuumatu waxi aji saar ak beneen ak beneen ñu taxaw di ko defendre tey ñun ñu continuer nangoo jël suñu élément di ko tasaara di ko dóor suñu su ci kaw ñi nga xam ne suñuy noon lañ kooku ñun ñooy kon ñun ñooy suñu opposant wu bopp mais keneen opposé gut parce que nag bu dul dara imam am na lum am am na rôle bu mu joué ci biir parti bi. Mm-hmm. am na rôle mu joué ci projet bi tayle na ci laay fam tayle ci lu lu bëreem. Mm-hmm. dox na ci def ci. kon bu benn wax heure am ñaar rek ñu bëgg ko jël xalab ko ne baaxut nangam te ñay def loola ñu ngi ñu ci ëpp ñu ci biir morab ut seeni booyu bopp yoo xam ne parewul lan lu dul lan lu dul maanaam yàq yàq ñenn ñi nga xam ne seen image peut-être am na côté bu mu baaxee woon am côté bu leen ñàkkee arrangé loolu man duma ci ànd ak mbindeef mu yàlla bind parce man su may ànd ak yow soo nekkee ci ëral yonent bi salaa salaam la ñu jàngaloon ku ngeen munti ànd ak mu seen mbokk su tooñee dimbale leen ko buñ ko tooñee dimbale leen ko aji laaj na ko xam nañ ne buñ ko tooñee de waaye bu tooñee nag mu ne tey leen ci loxoom ngeen tëju ci nekk wax ko dëgg na ko yaa tooñ ba bu ëllëgee bu mu defaat loola ndax bu tooñee daf lay gàccaal yow muy soppeem tëju nañ ci biir groupe whatsapp bu ñuy wax modap national numéro un nga xam membre fondateur yi ñoo ca bokk ñenn ca ñooñee am ñu jël benn audio imam boo xam ne wax na ba mer ba génn ba saaga ca tasaare ko seen i booy seen i booy yooyee jël audio booba di ko taf di ko di ko windeel dëkk bi nag am na yoon liñ ci war a def comme yoon ko ci def xam ñan ñoo partagé audio jàmbur booba yaa ngi dégg mm-hmm. ñan ñoo ut ay booy ñuy attaqué ay nit personnel di leen saaga ba ci man mi am na booy bu ñuy wax saaliw xel xam ko ma tiktok bi gën na di daggal ay saaga man di ma def nangam danaa ko yóbbu chambre criminalité nag bu fekkee lu yoon dëkk bi am na yoon ñu teg ko ci yoon xam kan moo ko yónnee ay ojo jàmm ba man leen saaga man lenn taxul mu may saaga lu dul dafa am gis-gis ànd ak sëriñ buub man gisuma ne war naa ànd ak sëriñ buub mu may taxaw di ma daggal ay saaga te au contraire bu loi ak yoon waxee tracé moom du des foofa parce que moom dëkkul Kaolack Touba la dëkk man ma dëkk Kaolack di xeex intere Kaolack moom mu jógee Touba ñëw ne moom mooy xeex intérêt Kaolack loolu du dëgg du parce que nag ñu dëkk Kaolack ñoo gën a mal placé pour xeex intérêt Kaolack du lenn lu dul man maa taxaw def vidéo ne Serigne Mboup ñaari at lañ ko jox Kaolack ñaari at yi ñu ko jox Kaolack yëpp Kaolack dafa indoonde te ma wax laaj dëgg la beneen bi mooy la preuve mooy Serigne Mboup nee na da ngay defar Kaolack buntu gouverne gouverne buntu maire bi. Mhm. ba sa buntu kër tali bi dara baaxu ci defoo ay acte yu wan yu état pour tali bi tali baax sa buntu kër Serigne kër Sëñ Bassirou dafay taa buntu kër xalif général leew nañu seen sama maam man dafay taa bu tawe ak yeneen ak yeneen ñu ñun duñ ko wax mal placé pour dëkk Kaolack pour xeexal Kaolack te bu Kaolack indi woon ñaari yoon ñetti yoon borom Jakarta maa ne nit ñi génn ne Ousmane Sonko Diomaye waxooli woon ñu woon lii te fekk au cause loolu du xeexu état xeexu maire la ah ñu yebal ay booy ñu dagal ay nit ay nangam ay nangam loolu tee arrêté dafay arrêté nañ continuer lañ nekkoon lañ doon xeex muy projet projet boobu dafa ëmb lépp loo xam ne nii képp koo xam ne gis nga safaan boo xam ne nit war naa defar dëkkam ñu jox ko budget budget Kaolack nekk tula 3 milliards xaw ma 7 milliards ah nga jënd ci ay quelques oto ñëw taxaw bëgg a yeb nit ut ay boo ñuy taxaw ay di saaga ay sëriñ di saaga ay kilifa yoo xam ne biir Kaolack lañ dëkk dëkk seen maam yi dëkk fa loolu où est le problème pour lan bu dee loolu mooy bëgg a continuer ti ziara daw ngi ñëw gàmm mi ngi ñëw ba barke alxur barke xalifa ñes bu loolu di continuer muy ut ay booy ñuy jógee fu nekk ay influenceur ñuy taxaw di daggal saaga ay ndey di daggal ay saaga ay gor yoo xam ne dañoo set wecc taxaw xeexal projet bi moom sëriñ boobu mi dégg bu fekkee loolu mooy nar a kon du duggati kër xalifa ñes jeex na loolu changé fii dafa doy lu mu ko jaral ba mu ut ay booy rek dana ma jaral lu ko ëpp ba bu buggee dugg kër xalifa kër xalifa ñes ay bakkan mooy wadd bi barke xalifa ñes kii maa la ko watal parce que sëriñ bu ba muy campagne di laaj mairie Kaolack xalifa général la ñu seen sama maam daf ko jox otoom Equinox bu noir boole kook doomam bu ñuy wax Saloum Niass li wax ay preuve la ñu ànd campagne Saloum Niass feebar ba gaañu génn na bu yàggut rakku oustaz Aadi Niass bi xobal fajiri la moom Saloum Niass génn na àdduna bu yàggut sëriñ bu benn yoon la fa teg tànkam keroog dëj bi tegaatu fa tànkam kooku nga ne maanaam ñun nit ñi danañ xam li xew ci sëriñ boobu doon xeex ak baax ma bokk ci ñi sànnil sëriñ buub carte yow mi taxaw di kaasal sëriñ buub di ma saaga di ma wax lu ñaaw tey bu voté votel sa gox amoon yow Touba ngay sànni jël carte sànni jee woo carte Kaolack ñëw biir Kaolack bëgg a xam ne xew Kaolack loolu dafa mën a nekk loolu mënul nekk bu dee ay influenceurs yu nekk biir Kaolack nag ñooy taxaw di la kaasal kooku du ma leen mës a tontu parce que Kaolack lañ dëkk li taxaw ñuy taxaw di ma saaga di ma nangam loolu changé fii dafay ah, jàpp ne moom moo nekk ci ginnaaw ñooñu di la saaga bien sûr moo parce que li tax mu am mooy ñi may saaga nii li tax ñu may saaga am indi benn cause diw nangam mi doomu xaram la nangam la nangam la nangam la te bu tey bu avant bis ba nga koy def da man damaa damaa dal ci kaw sëriñ bub ne gis naa ne yaa ngi ut ay nit yu taxaw di la ragal sa gannaaw mais am na lu gën loolu li gën loolu mooy budget Kaolack bi ñu la jox def ko ci Kaolack hôpital Cheikh Ibrahima Niass bu Kaolack bokk na ci hôpital yi gën a mag yaa ngi dégg tey billahi wallahi wa tallahi bu malade feebaree bu fa duggee problème daf problème lay am ndax lan ndax ñàkk matériel ngay dem di jëndi ay oto ay nangam ay nangam am na lu gën am na lu gën a lu gën a yitteel loolu mhm. buntu police Kaolack boo ñëwee rond point euh, police bi moo jàkkaarloog maire Serigne Boub am na pax mu fa nekkoon moo xam ne avant Serigne Boub di fallo def na fa ñaari at ñaari borom jakarta dee nañ ca daaw jéeg daaw ñaari borom jakarta daf ci soog ba dem bintu hôpital mu taxaw ne dana wax ak waa ONAS ñu defar ko ba ko jëlal kawlax mooy seule boo xam ne dafa abu dafa abu gouvernance gouvernance bi bi bi nekk côté jumaa Joloke bi moomuñ ko dañu ko abal ñaata milliards ñu yor ko xeexul pour dara intérêt personnel rek la sëriñ boobu di xeex nee ma mooy lan ba muy campagne daf ñu waxoon ne dana dana dana fexe ba collaboration ak état tali yi nekk biir Kaolack te mu defar ko tali yi wal joojo xàlloon yëpp muy tali de voies yi li ci ëpp léegi benn voie la fat nañ ko benn ñaareel ba mun nañu inondation yi bu mënul bu mënul mu arrêté dana wàññeeku ñu gis ne nawet mësul mësul dugg buntu nawet ñu ne bërët dugg nañ buntu nawet ñu ne sëriñ bu ak ay nitam wala jël na ay booy ñuy wax kanaale mësul am loolu Mariama Sarr rek moo ko mës a def te Mariama Sarr laa gën a contre moom laa gën a bañ muy leer xam nga ma li may wax day leer ànduma ak benn politicien bu dul Ousmane Sonko ànd bokkuma ci benn parti bu dul Pastef kenn yónniwu ma mais intérêt personnel u bu tegoo dañ koo war a jël teg ko parce que boo demee sama sama CV ak sama kayit ya ak sama lépp Kaolack nga fay gis su ma doon dee te yàlla na yéex ma tëdd hôpital docteur na ma yow ñaari fan la dese su may joxe testament dama naan nañ ma suul Kaolack waaw kooku kon lu mu mën a am ci àdduna dëkk kawlax koo ko gënal waaye Kaolack développé moo ko ko gënal Kaolack mosu ñoo am benn maire bu ñu yërëm benn maire bu defaran ay naxante ut ay nit ñu taxaw di la tàgg di la nang am lu ko ziar lew nañu seen bii passé dafa ñëw dafa ñëw ci ci CRD bi ne dana fa joxe 10 millions yoo xam ne ci ci euh, ci ziar bi la jëm c'est faux amut la mu fa joxe matu 2 millions mu dem jox mu dem ca mu dem ca carte kii ba ne 10 millions la joxe lew na dem Medina Baye euh, am école bu ñuy tabax foofu ci biir école nas mu war mu war ne dana fa def 100 millions c'est faux amut la mu fa def matu léegi ñu ñu gis ñu ne doomu Kaolack di gis yooyu yëpp ñuy mbuboo suñu këru diine yi ñun ñoo leen ko wax loolu pour lan yow nga ñëw siyaare lew na ak gàmm nga ne da nga fa joxe da nga fa joxe 10 millions jox fa 3 tonnes ceeb 3 tonnes ceeb loolu mooy 10 millions 3 tonnes ceeb 3 tonnes saako ceeb euh, kii la 25 kilos loolu mooy 10 millions sama benn rakku papa rakku rakku Saalum Niass mii ma lay wax moo ko doon séddale ñu koy wax Idrissa Niass man damay wax lu leer dama koy wax hmm. pour bu bu ko neexee na suba dama oolu moom sëriñ marché Kaolack bi di jooy pareeguñ nit ñiy jooy ñuy jooy français yi jafe-jafe yi ñu teg Kaolack bokkutoon ci dëkk yi am Auchan yow nga indi fa Auchan biir Cœur de Ville jël Cœur de Ville nga da doon xeex ak Mariama Sarr pour mu signer la ko Cœur de nekk sa moomeel dans 10 ans dans dans 50 ans Mariama bañ loolu waa marché Kaolack bi bañ ko marché Géej marché bu mag marché Zeng syndicat ñëpp commerçant yëpp ànd nekk benn bolo xeex bi loolu bu mu fi am yow nga jël maire bi taxaw joxe décret bi Auchan ñëw def def def def li li kee doon bañ maam signer contrat mu nekk sa tur yow kër kër de ville nekk nekk sa tur cinquante ans te yow booy xool sa dorosine nañ la dàq dàqale dàqale léegi nga génn Kaolack bokkoo Kaolack nit ñu seen d'origine bokk Kaolack nga bokk ci 5 milliardaires u Sénégal yi soo taxawal dara Kaolack ba pare ñu ne ñu loolu ñun duñ ko wax te ñun te doon wax li Macky Sall doon def ci Sénégal ñu nangoon koo wax tey tey ñooñu doon défendre loola taxaw défendre seen dëkk ñoo leen waroo leen koo défendre waaw bu fekkee dëkk bi dafa am ñaari yoon nañ ñu wax. Mm-hmm. lii kese amuñu problème kenn. mais nag duñ may kenn ku jugee beneen dëkk ñëw taxaw jël say sëriñ taf leen ci gannaaw parce que li may kaas suma ko kaasu kooku saalu euh, euh, saalu xel xom moom dama daggal ay saaga man. yaa ngi dégg dama daggal ay saaga ndax la ndax intérêt personnel am moom loolu day dagg. parce que maa ko gën a kaw a dëkk Kaolack te su dof dof loo ba lii di continuer danaa ko yóbbu chambre criminelle mu wax ma lu nekk ci loolu bu fekkee dëkk bi am na yoon danañ ñu man ak ñeneen ñu mel ni moom di ma attaqué attaqué personnel di ma taf di ma saaga comme neex nag taf ma waxal lu la neex ci man mais saaga ma ñu ma ko mi def mu yàlla bind parce que du ma saaga nit mm-hmm. danaa kaas li ma war a kaas fa ma ko war a kaas ak na ma ko war a waxee lii moo nekk suñu problème du leneen léegi nag loolu lañ di kaas ñuy dem ba ba mu dugg biir mu rab li tax mu dugg biir mu rab mooy mm-hmm. dafa am groupe modab bu ñuy wax modab international. dama gis ay booy jël ay vidéo ya ñuy taggee sëriñ buub ak oto yi mu jënd Kaolack ak yooyu dugal fu ko fa. man ma audio ne aujourd'hui yow diw mi jiite groupe bi waxal ak booy yi dugal liggéeyu sëriñ bu fii ci groupe bi group bii groupe bu Pastef la du group bu sëriñ bu suñu amee liggéeyu sëriñ bu fu ñu koy fësalee dañ koy yemale seen kon TikTok yi wala ñu ubbi seen beneen groupe WhatsApp boo xam ne maanaam concerné wul Modap wala concerné wul Pastef mm. ñu dugal ko fa bu dul nag man ma génn groupe bi parce que yu mel nii dana dana yàq suñu ànd ñun sëriñ buub leader boppam la ànd nawleel la partem tudd nañ em foofa ñu xeexal ko ñun Pastef la ñuy oote Ousmane Sonko lañ gëm moom nañu xeexal xeexaluñ keneen. lii la de Imaam Dramé Costa sama wax jooja vocal ne li nga wax mooy dëgg sëriñ Seex ñu ñi def nii xam nañ leen nangam nangam mer ba tudd ca saaga. ñu jël audio Imaam Dramé boobu yónnee ko boo yooyu di xeexal sëriñ buub boo yooyee ngay gis ñu génn ci compte TikTok euh, lañu nekk. mais mënu ma ne démb ma lu Imaam Dramé wax ma jël ko posté ko sama TikTok ànd ak moom tey sama interpersonnel taxaw ma bëgg di ko xas loolu du ànd see ànd bu sincère nañ waxante dëgg. def na erreur nañ ko oo ci nekk te oo nañ ko ci néeg muy groupe bi waxtaan ak moom mu nangu regretté erreur am par nañ ca mais nag bu ñu jëlee ay nit nekk ci biir groupe bi di ut ay ay privilèges wala jiite wala nangam jël ay waxu jàmbur du ko tasaare ay boy pour ñu yàq kooka. yaa quelque chose te am na leneen lu nekk ci biir lu ñu war a wax loo xam ne bokk ñu rek bu ñu ko waxee seen yu ñàkk fayda yu ñu nekk nii man loolu laa wax du dara du leneen ku am sa données personnelles xeex ko te nga génn ci modab te nga génn ci Pastef te nga xeex ko en personne mais nag bu ko jël di làqoo ci gannaaw modab wala gannaaw Pastef kooku moom Cheikh Niass du ko may mbindeef mu yàlla bind voilà wax nga ko léegi ci sa biir wax euh, am na waxtaan woo xam ne xëy na euh, seq ngeen ko ci suuf ak ki nga xam ne moom moo di euh, Imam drame récemment sorti bi nga xamante ne nii def na ko ba yëkkati ay kàddu ba daanaka yëkkati kàddu yu ñagas ci ci télévision bi kàddu yooyu mu yëkkati yaa ngi koy wax léegi jot ngeen a moom waxtaan ak moom ci suuf ba mu nangu li nga xamante ne nii njuumte la ci côté am. sawaay li ma la wax léegi moom laay continuer di waxaat dama man gëmuma di ànd ak nit tey mu ne baax na ñëpp ne baax na mhm. lu baaxam li ëpp lu bonam li nga bëgg ko bonal ne bon na yàlla sax boo génnee àdduna ñu suul la bu yebalee malaaka mu ñëw ci yow daf naan ko nat peeseel yi baaxam ak yu bonam sa yu baax yi bu ëppee sa yu bon yi ku baax lañ lay wax mais ñi ñi ngay wax dañuy attaqué est-ce que du kàddu gi wax ak wala saaga gi mu yëkkati rek la ñuy ñaawlu wala dañoo dem au-delà de ça yegg ci leneen lu wute ak loolu ba tey déggoo ma de dama ne dama ni déglu bu baax li ma wax dama ni dafa am ñu nekk ci suñ biir ñun ñoo retiré audio am moom jox ko booy yu leen neex pour booy taf ko comme am na problème ñu gaaw profité ci problème booba gën ko yàq. loolu laa ne la da d'accorduma ci ci ak ànd. Mm-hmm. li tax d'accorduma ci ci ak ak ànd mooy ñun ñooñu ba ñuy xeex tey am na ci ñoo xam ne bu seen audio génnoon nga tee sa gémmiñ parce que booba ñi ngi xeex ak Macky Sall di wax di maam di waxee dënn di waxee di waxee mer parce que booba ànduñu ak Macky Sall gis-gis. bokkuñ anam moom gis-gis mais démb mënuñu woon a jël audio yooyu téye ko suturaalante suñ biir tey coow am nit bëgg cee burux loolu rocce audio jàmbur santre ko su ma doon moom booy bu ko taf génn audio am na ko yóbbu ci yoon ñu xool audio yi kan moo ko jox booy yi. wax ne ñu ko génne ñu ngi ci biir kuréel gi. moo bien sûr moo am ñu ne neen ñu ngi wax ci biir loolu moo am li ma la wax nii moom moo am te dara warulu ko lu du privilège ak poste ak bëgg jiima defar sa bopp yàq keneen kese. te loolu du ànd man loolu laa wax man Cheikh Niass su doon ànd ak yow mii sëñ bi ma wax la ni ma mel man man nii laa mel billaahi wallaahi watallaahi man nii laa def su ma doon ànd ak yow lii tax man ma bala yow yaa ma koy def nan nit ñi ñëpp taxaw ne ma diw dafa bon sama fou damay jàpp ne ñoom seen intérêt moo tax ñu ma yow da ngaa bon mais wana góomal tax lu tax ma gis ne da ngaa bon mais heure bu ma gisee ne da bon bu ñun ñi àndoon bokk groupe créé ko mhm. doon toog di point de presse di défendre benn projet ba projet bi àgg fa mu yegg waru ñoo mën a retourner waat di kenn malgré li def ànduñ saaga yi ànduñ mhm. parfaitement raison loolu mooy dëgg kilifa am na loo loo war a génn sa làmmiñ directement ak loo war a mënta génn sa indirectement ñun ñi amul kenn ku ci wax ne sa doom du du la def parfois benn affaire nga mbéj ko saaga ko day am mais loolu sa biir kër la yam bokkul nag nga toog a public ñëpp di la seetaan nga nekk référence ngay saaga loolu ànduñ ci mm-hmm. parce que loolu daf dañ naan ñëpp noonu lañ mel te fekk ñëpp meluñ noonu mais loolu su ko defee bañ yedd ko ba pare nag dañ ko jëlaat boole ko a mhm. kenn ku nekk génn def live def nangam loolu ànduma que li ma wax toujours ñun Pastef ëllëg buy yëngu lu mel nii moo ko yëngal mooy ñun si suñu biir ku ci def erreur au lieu ku mais dañuy jëlaat wax yu bëri di la mun nga mer génn révéler taw yor mën nga yor yoo xam ne boo ko génnee addu tukki parce que ñu ni neen la loolu laa wax ne ëllëg boo amul sens ku ñuy ñu si suñu biir lay nekk. Mhm. parce que mun na def erreur doo ko ko pardonné. nga génn di ko windeel ci internet beeg yu kenn xamut moom it mën na mer génn lu mu yor ci keneen loo xam ne ni mun a yàq kooku. Mhm. foofu laay waxee moo tax ma ne nañuy suturalante ci suñu biir dafa am lu ñu ñor nañ concentré wu ci loolu muy Sénégal jëm ci kanam. Mhm. oote nañ nit ñi na leen am nañ projet bu ñu yor jaay leen projet bi xeex nañ ci ba ay bakkan rot ci nañ yërëm ñooñu dee. xamuñ fu ñu mujjee ëllëg. nañ yërëm ñi ci dagg seen i tànk nañ yërëm ñi ci dagg seen i loxo nañ yërëm ñi ci ñàkk seen liggéey lan moo war a doon seen taxawaay tey yéen ñi nga xam ne defe naa ni euh, xeex bi fi mu tolloon moo gënoon a jafe ba mu agsee fii fi mu ne li ci des mooy euh, liggéey jàppale ñi nga xam ne nii tey ñoom ngeen jiital ba ñu mën a réussir li nekk seen kanam. foofu laay waxee maanaam couvrir. Mhm. projet bi benn ñaareel. protéger ko ñetteel ba ñu protéger wante ci suñu biir. ñeenteel ba ñu joxante sutura joxante gëdd ak respect bi ñu joxante woon ba ñuy ànd continuer noonu mais bu ñu dem ba tey kenn ku ci nekk di xeex sa intérêt personnel ak poste foofu laay waxee. Mhm. du feneen mais bu fekkee ay cadre poste la ak nangam Pastef mënuñ ñoo jox poste bu ñu yàlla joxut. Mhm. parce que lañ ko defal mënuñ ñu koo delloo mais ñun tamit lañ def liñ defal Sénégal. li ñu Sénégal defal kon nañ ko delloo Sénégal ñun. Mhm. mooy dafa métti yàlla romb ñëpp tànn ñu jox ñu Sénégal. kon pour ñu yor Sénégal. il faut ñu ànd ñu ànd suturalante ñun ci suñ biir parce que nag dafa teel trois mois quatre mois kenn ku ci nekk di génne ay sutura jàmburam nangam nangam. eux mhm. problème dafa teel saa sa fii. te bu fekkoon ne dafa dafa déclenché woo ci lu ko jar sax waaye ci déclenché woo ci sëriñ bu mii nga xam ne mënut a yor këram ah boppam la yor soo koy défendre yemale ko ci plateforme bopp. man saay sama rakk man sama rakk man Kaolack la nekk moo Ndiaye rax ma lay ànd ak Macky dafa tax sama ànd ak moom yàqu. Mhm. taxu yukkin kenn ci sama mère ami man kenn ci sama mère ami Macky Sall la sëtu Alaaji Ibrahima la guddi timis heure bu ma demee Kaolack buntu këram laay fréquenté ba minuit mooy dawal sama oto ba sama buntu kër mu jël sama oto yóbbu buntu këram moo ma xamal sama lépp te Macky Sall la jàqu ànd dara mais nag politique dafa am mhm. politique tu am booy dugg ci politikantu doo comprendre ni nga war a doxalee. kii da ngay sëriñ boobu da ngay ànd ak moom pour intérêt personnel am ak intérêt Kaolack àndeel moom ak loolu. bu maanaam biir ànd ak moom ak loolu nag bul bul ci jël intérêt Pastef di ko ci dugal. Mhm. parce boo naree jël intérêt Pastef dugal ko ci da nga dem ba yow doo xamante fa nga jëm. d'accord après daf la yàqal loo liggéeyoon fii yàqal la nga bëgg a liggéey fee. d'accord voilà.